min ali ونادعناهم ربا أن ونادعناهم ابنا فقل ودنا صعبلا ونادعناهم ابنا ونادعناهم ربا دون ما كفرين نادع بلد ni ngay def mooy nangu naa defaral gaal noo koy defe bi ayuninaa wa ayuninaa téeréel nga laaj mu di lu tax yàlla di wax ne defaral gaal bi ci sama bët ak sama wattu te bët bi jumtukaay buy yettu bët bi jumtukaay buy bëri bët bu jumtukaay buy suude lu tax yàlla na ko sama bët mu ne ñu ne luñ ci jublu ci wattu la ko ba saay saay duma nuural loolu sama boole ci bët bi boo liggéeyee ba ngoon tëdd it saa saa bi fi ñëw itam sama bët nga tëdd ci moom danoonu kon bët yi dal di mel na ni sawta am na place ci liggéey bi ila nooyin maa yónnee ci no an nasna al fulka bi ayunina ñaar yëpp am na benn bi sa kosa la benn bi ci kosa gaal gi maay wattu ba si nit ñi di dal fu ngay roodal kon day tax daal di bënn maay wattu ba boo wàccee kenn du ko ayib allahu akbar allahu akbar maay wattu ba kenn du la dal ñu koor ba du teer am sa dégg si de daal ne asamaan la ma la dénkoon ci ndox sotti ko suuf bul wan naa pos bul wan naa footi benn guux bul wan naa footi benn peppab ndox te loo yoroon dëkk kon si ne jant dina ko bul fenk ci loolu guddi yëpp ak ak ak ak ak ak ak ak ak weer bi dugal ko ci pax tëj mais noonu nag man laa jox benn signe ramatulaay sa jabaru doom bii na di téere ak asu moom laa jox benn moo gisat parce que gaal gi la lay signalé ne mu ngi ñëw mooy fu tumurante lay doon fuur fuur dégg fuur baaxoo na tax baaxoo na tax ida jaa amrunaa wa saaratil nuuru kon loolu ko mu gisat lépp jamono bu taw bi togg bi yëpp ne am na lu bal la ci tànkam ci karbet yi muy sol di togg ci waaj bi la ko signal bu boobaa taxawal oote ne jaamu yàlla yi na ngeen dal di ñëw dugg ci gàllub mucc gàllub sariya képp koo xam ne kii bàyyi nga ko fi mbokkum topp ba ba neex ak kéefar dina la woon wàllu sari agul jenn la kaay leen dugg ci ku ci sàggan ndoxum kéefër ak topp topp ba nekk mag te mbeen la wan na te jaanam ngay tëdd benn yow yow xale bi yëkk ci àll bi rek mu ne tàpp mu xool gis na ko nag bu bu bu ndànk asamaan mu ngi naan suuf bu dul woon sama yàlla yemale dinaa la sotti ndox ba tàkk ak sara suuf naan asamaan bu du war suma yàlla yemale naa la gëq gëq gëq ba suufi aras ñu continué jëm te di adduna bépp di dox téeméeri at ak juróom xam nga am na loo yës na wal fulka wa kullama mara alay malaw min qawmi taqiru in tasfiru minna fa inna nasxukum kama tasxuuna fa sawfa taalamuuna am na ci biir waaye ak buñ ci waaw mais dégg nga yaa ibn abdillahi alamu ila safinati saria man taxalafa an nayu kufri alak daw si leen ci gaal ak sariya muy bu yàlla ku yéex ndoxum kéefër na la war na ko na nga dekkee ci àllax yàlla na ko wasluk fiha min kulli shay'in muslimin ci rajo bi jaaxal na jàngkat ni parce que fiya dañ xam ñu fiya fiya fiya yéen fiya di sàll fiya loolu fiya arfu istiauna wala maada fas niñ koy def war gaaw a oto dugg nee na dugg dugg ak war bokkul waaw li tax yàlla ñëw ci gaal gi naan war duuru fas dañ koy wax di leen mais oto bato yàlla du employé nit dugg ci biir bato parce que bato bi ñetti kal la amoon première deux trois première kal bi wax si li ci nekk ak njanaaw yi ak tuyoo yi deuxième yi sibaan la ci nekk ak ak ak na mu tuuti troisième yi ci ñu ngi nekkoon ak équipement gaal gi di sept personnes ak ñett yo doonoon ku nekk ak sa jabar bi ñuy teer quatre vingt personnes lañu dëkk bi ñu jëkk san te ñu ngi ko tuddee villa quatre-vingt villa quatre-vingt dëkk dëkk juróom-ñetti fukki nit xayetu samaaniina la dëkk ba tudd xayetu samaaniina fas na fiya gaal gaal gi damay raafal nag àdduna loo fi gis dootul am waaye sàkk ci jiw lu ñu xat xat mën naa jël jiwu képp waaye bu ñu ko paas usluk fiha min kulli zawjayn اثنين لا تتقشعر الى عينين اثنين توكيد له ولا توكيد البيان ولا ولا بيان تقليص فوقنا دفع يعملون أمر دار من شيء أدنى ومن كل شيء خلقنا وجعلوا لعلكم تذكرون فاصبروا إلى الله إن لكم نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلهنا آخر dugal leen ci garab bi mais bul dugal benn fan na ci dugal loo contrôle bu ñu dégg la ma de fasbir fiha min kulli shay'in fabta'idnayni waaye mu ngi dellu nag ci wala tuqaatilu fi lazina zalamu jaram daaw daan la utal diw dinaa raafal àddina tuur saax yi dina mëdd garab yi dina mëdd nit ñi dina mëdd wax naa la sànq ne na masala ne dinaa ci dellu si waat ci lema noon na toog nañu quarante ans kenn ëmbul maa ngi lay bëgg a wax si soxna soo xam ni wax nañu ni ba ko ndox mën la jëlee ba jël ko fekk mu ngi boot dafa fab doom jëpp teg ko ci dënnam pour mu sawe ndox ma ñëw ba tolloog dënn bi mu fab doom ji enu ko pour mu sawe waaye ba ndox ma duggee ci bakkanam dafa fàtte doom ji daanee doom ji suuf dëgg ci pour sawe yaa nekk rek bu mu doon yërëm kenn kooku lay yërëm ñëpp de nag mën naa am xale ba bi doom joo xam ne diggante bu ñu juddoo ba maaw turfan bi am mat na quarante ans muy kon wax jële woon dàkkuwul am na genn na koy yàlla yëf lu may sal am na genn na koy goo xam ne jullitoo mos na fekk ci nooy ne ko sa borom day dégg naa dafa def la dig ci nangu sa ñaan mu ne ko waaw dinañu fi indi ndox moo xam ne dina faagaagal àddina géej jéeri dootu am ak géej mu ne ko ba boobaa nag ma ko yëgal ma teel a dugg si nooy na waaw gaal ga ñëw da ba paase nooy fàtte ko ndaw sa ba ca déwén sa ndaw sa ñuy si ko ne ko kañ la gaal gi wala borom bu bayal la waaw ah ah ah xam ne imayatullahi ahmad al mudaafati waaw waaw moom jullit la woon yëgoon na xew xew buy bëggal ko ba dénkaane boppam nooy ne duma la fàtte gaal gi ñëw na gaal gi am na cent cinquante jours diggante du mu tëndee du mu tee adduna tout parce que wa gis na ay tur wa kullama mar alayhi malaw min qawmi saxiru saxiru mina saxiru boobu mina ñaar yi ñu ko waral spécial mu ngay liggéey gaal gi mais bu fi mag ñi jaaree économie yi saafara yi di ko reetaan téere yi nee naa reetaan yi ñaari ba koy wax est-ce que dañ ko doon yow looy def nii mu ne dama fas yéene addina tout ñu fa leen benn néeg buy tëmb ci ndox fekk xam ñu luy gaal dama sol xam ñu luy gaal loolu rek loolu du jàpp ni reetaan ñenn ñi naan nakañ xamoon nañ ne gaal waaye ci mu ngi gaal kéefa la te kéefa géeri géeri la dex amu fa ko moo gaal kon nag bi yëpp gaal foog moo tax xam nga benn waay bi ñu fi wàcc kii wàcc moom rek la moom rek la ndox mi mën a ñu dal ndax trois mille trois cent trente trois mètres la woon kii wàcc trois mille trois cent trente trois mètres labal ci ndox mi te non ñu ni ko ñu ngi yem ci jumbi xam rek te itam liggéey na ndax am na ci matériel boo xam ne kaay mënuñ ko woon indi moo ko jëlee ba moo ko indi ko Ndakaaru te baax na ko amul géej. laa ilaha illa allah. ki wàññi benn weer. kenn du mag. ah. Adama jur la woon moom demoon na ba. bu xëyee jàpp jën ci géej. ñu ngi koy lakk ci jant bi. loxo baa nga sës sa jant ba pare koy wàjjee fiiriir ko lekk. loolu mat ak xaar. demoon na ba réew mi ñu ne da leen di saw bu nooree da leen di saw ñu la waaw demoon na ba réew mi ñu ne bu ñuy ruut mu def naanu fa ba asamaan si biir mu toog ndox mu dem ba mu toog bu ñu béy at moom man waaye bu muuf moo leen ne waa ji daal doole ji mu am ak ni ñuy siifi nit ñi leen ne rek tax ñu mucc ci niñ ko fi ñun ñëpp lebal ko mbubb nit bu la amee la bor dina daal ñëpp dogal ñëpp dogal ñi ñeenti mètre ñi fukki mètre tëngeer ñeent dëkk dégale ko moom yi moom la sol moo tax lu mu tarpas tarpas bu ñu bee dëkk bu jubee dëkk ba rek ne kañ dama leen am naa ñoom affaire dama leen amal boor yàlla ñuy xalaat dara dugaleen ci gaal yasmaa fulk fa iza jaa amruna فإذا طارت النور وجاء أمرنا بتلبتين فإذا جاء أمرنا وطارت النور سرين جنما وطارت النور من النبنب من الله فإذا طارت النور وجاء أمر من دبل تخليف دير يا مودي بابا xamal ma xamal ma lépp luy concerne doomu aadama ci kaw suuf fab fab fab fab ko fab fab contrôle am contrôle loola fab doole xam nga xam nga xam nga xam nga maado lu muy firi lu yàgg yàgg bul yëg saabar te yobaale woo wóor bu ñëpp nag xam nag te bàyyi fi bànneex bu ñëpp képp ku yóbbaale woo rek bu ñëpp mënta yóbbaale woo xam-xam ni ñu koy sel ci liif may bi parce que boo bàyyi la mu teeroo day daal di indi ay day indi ay yër te indi woo feebar du baax day indee feebar te indi woo yër du baax boo indee njàqare te indee xel mu dal du baax boo indee xel mu dal te indee njàqare du baax ndax inna laa yaabudu wa yabiyatu tasfiyatu yi daal yi ilal abdi te fa naw kama yafaw laakin dañuy bëgg bu ci nekk nga am tuqaabil boo xam ne tuqaabiluha ida ñëw leen fàddi ci gaay doom ji ne tël wa kaana fi masalin fi masalin fi masalin yaana booba taxu na baay bi bokkuñu diina mu ngi ci geneen diina ji dul ji baay bi ne booba taxu na baay bi bokkuñu kër mu ngi ci geneen kër gu baay bi new bi baay bi ootoo mu ne tël ànd ak ñu bokkal parti daw uti tig na du ah ah
yaa bu nekk maanaam ak woote waaw waxtaan nit naxoo si maax ba mu ne bërit uti fa yëfar yi jëm war naa daa ib war naa daa noonu ib na yaa rab yaa yëpp ni ërkëb maana wala takun mu di ko tontu naan ko sa awi ila jëbal yaxsimuni min al maa yi bàyyi dina ko lan la asina ak yow ma min amrilaay ila ila ila man ila man rahima loolu ngeen jàng dugal la diggante rajo ak wànq gi dama ne اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين فعلي رجل يعلمني من الماء لا أعلم اليوم من أمر الله إلى من إلى من رحيمة بيقول لي بيقول راجل أبوك ليف بيقول أنت أبلون كبيك راجل بيقول ليف
إلى من راهن شو فايل ليه ها كل كوكو كل راهن راهن ay bu na xëne dégg nga tey jii si am yi la jënd yaf si ñu may la aazima al yawma min amrillah min amrillah ila man baax na ila min waaw ñu ne wàllu goo xam ne min raa yi ni bu boobaa nag diggante ab lonk bi ak raa yi def ci liif kenn du mucc ñu ne mucc boo xam ne ñun raa ini ñu ngi jóge ci ki ñuy wax raa ini raa ini nag walaaw comme laa min amri laay ila man raima laalu raima jooju laaw lay fi daa ngi tëmb laa ilaha illa allah daa ngi tëmb daa ngi tëmb doom jalaat teewal jëkk dugg tey teewal jëkk dugg ci gaal bi mbaa ma mu jee dugg benn wéyal wéyal ci loolu dafa ñëw ci ñaar moom it li ko taxal ñu yëpp a dugg mooy iblis a ko fàtteel parce que góor gi narum iblis voyante iblis it xam na ne mbooleem ci ñaar yi mbaa mu ci gën a tooy mu dem wangaa mu ci ndigg li ñu naan ko dañuy dañuy largué dañuy largué yee entre mbaa dugal mbaa dugal waa ji iblis lan nga mu ko diggali rek de nooyi capitaine bi mer na ko yee yow ku ñu rëbb ki duggal iblis am na wala parce que iblis rek la yàlla rëbb mbaam la doon waxal yow mu ñu rëbb ni duggal waaye bu ñu tàggee iblis dugg waaw yow ñu ko la dugal la yaa ngi yow ku ñu rëbb ki te man rek la yàlla rëbb أريد من أنفئنك رجيم وإن عليك لعنة من لا إلى يوم القيامة kon yaa ma dugal maa ngi santaane nag gargante charge nañu ci nañu ci kilo yu mu war a yàq bu kenn sëñ doom di am njaboot gi yokk ñu jural ñu di ci liggéey wala su wóoree xaw ma baax a mu soxla. man de sama yàlla fan nga ne lu tënk kañ. ah maa ngi ci gaal gi de waaye bu teree rek ñu dugg ci tam xarit. lu tax ñu tuddee ko yow ma assurance fukki yëf yi ñu bëgg ñu def ko ci.
pour bu fekkee dama ne jàmm.
ah waaw wax ko ñu bu baax waay.
waaw seen maam rek xam ko jar na loolu.
ñi toog dox mille jours ku nekk boo defulee doo am foo ko wëcc sa biir bëgg a rey nit ñi ci gaal bi ñu tawal ko noox noo tawal ko borom bi mu ne ko boo demee ci ñañ na nga waññaan bakkan ba mu waññaan ko ñu tisoo li kañu génn ci léegi ba ans bi tuut tuut tuut tuut tuut tuut yemu ca nag amatul lu mu lekk muy ñetti buuni gaal gi te kon dañuy dal di këpp ñu tala ñu kalaame ko ñu dal di kalaame ci yàlla mu ne ko demal nga fëgg boppam muus ñu fëgg ko boppam gaynde ñu fëgg ko muus génn waaw da nga doon xool ci te yëpp muus na ci la wéeroo xaj xaj bi na guddi sëy te yaa ba ba fakat sa dina bi kenn sëy mos gis ko daal doon ne patronat attention xaj mii ni nga tere ci la dëkk de xaj na ko waxul dëgg ngeen gis na reer sa mbokkum julli ak lu mu doon doon doon njuradi yàlla bëgg te yàlla ne na képp ku ma natt ci sama jaam moromam jaamam mu ko ree balaa dee dinaa ko teg natt ba waaw sama jaam ba ma seet nag kooku lu ma neex moromam jaamam mu ko ree balaa dee dinaa ko teg natt ba ba mu xam ne kama natt ñàkk woon ful la ñàkkul pexe borom doole daloon ci kawam baax na yàlla nanu yàlla atte su ko ko su leeti de su nañ ko defite xaj demaat di ko def suñ borom nag weer ko ci la jóge ba léegi bu séyee balaa faa jóge ñu bari fekk ko fa xam nga muus weer na ko ba mu waaru waaye it yàlla fay na muus ci sekkare jàmbur bi nga xam ne noonu la feeñal ci li ma lay bëgg a wax dooma laaj lan la dugg li ma lay bëgg a wax xaj bu jigéen bu nekk ci kër bu ambee boobu seen xale yi jëkkante ku ne tànn tànn naa kuti bii tànn naa kuti bii tànn naa kuti bii dal di takkal xaat mor set di ut yàpp di la jox muus nag boo sinee ñu ut saaku ut xeer wu diis dem ba ci giñ sànni ko ca parce que dafa feeñal secret jàmm yàlla bëgg ñettet mu bari ndax ñu mën a laal tuuti rajab la woon jaban ramadan sawal simia ba ak sili ajja ku ci ngeen ko kafara di ko fata waaye ka lekk fata ci fi mbir yër ak nag ñaaram muy tam xarit bii du ne weer wu foor la mën naa laa limal juróom ñaar fukki yëf yu rëy rëy yoo xam ne kon kan la yàlla xaar ba mu xew ñu door ko caa def waaw war ma yi ñuy def ñun mais moom yi mu defal bokkoon ci tam xarit biir bii nii yaatu moom juróom ñaar fukk ak juróom ñaar a ngi ci bi ci mujj sax mooy dina waxtaan dina passé dama doon maye jabar ma laaj ki ñu maye nu mu tudd ñu ne xadi jëtu ma ne weer yi wàll ñu ne tam xarit man ak soo ne xadijatu day ne doon ko takkoon ci tam xarit kon nag bu ñuy maye tey am xadijatu ci mayeeti ko tam xarit dëppee na waaw gaa gi tëmb rek ah di tëmb rek di tëmb rek ñu ne nag bu kenn xërati ci sa njëw kër nu ñu économie ndax xamuñu parce que ci yow yaa ngi laaj naan ñu yëpp jëriñ fil baxar quel mawj quel mawj di dégg ñu koy rek parce que géej gi xam nga ne garab gi maanaam ci biir géej la mu génne te mu lu tuy géej gi woon na ma ko géej gi woon na ma ko nga yëpp jëri ci baax bi quel mawj booba day fekkum ñu te ñu nekk ci kaw géej gi yu tax yàlla di lakk ne mu ngay mu ngay xotti ndex mi dem ñu ne nag ginnaaw bi nga xamee ne ndox mi wan na ko commencé attaqué taax yi jeexal leen attaqué garab yi jeexal leen attaqué doomu aadama yi ñëw ci ndaama yi ndaama yi jëkk a dee ñu door a dem ci waaw ñu door a dem ci ñu digg dee ñu door a dem ci njool yi ñëpp a lab ñun booba jamono la garab yi daw mel ni diggante ñaari dëkk yu rëy lay daw waaye di ko suñ wonee di ko ndox mi wonee won naa li yëpp gaaw daan ci biir ndox mi waaye mu ngi continuer di dem ni jëm di demee ci biir géej waaw jëm yi ci ci biir waaw kat ka doon yëg ci biir ñi la fam teg sam te korog mayante jabaram ngénti ci biir biir kooku yoroon kanu gaal gi di nekk ak ñoom noonu di servir loolu ci biir jëm defe naa ne timis bi ñëw na
wax sa wataala juut yi kañ lay ñëw ci yaa jëm si ni anda kon nag ñu xuus ah loolu ba mu loon su ma ne doon jëm ah góore laal yow yow gëbb ga gaaganti ngam sol maa leen di am wax nga dëgg dëkk ci biir géej foow ak gaal gaal ak nax ga juróom ñetti fukki nit la ñu woon mbooleem lu yàlla bind noox ana yàlla man na may danañ ci àll bi xàmmee gaynde gu góor ak gu jigéen ak fas mu góor ak mu jigéen ak xar mu jigéen ak mu góor mu ne ko ooteel lu ñuy teer su ku la jaare càmmiñ la jigéen la ku la jaare nday jóor góor la kon góor yaa gën a yàgg góor yaa gën a ëpp doon jigéen dañuy dugg ci gaal ba ku gaara door rek góor nga ku jaare jigéen de góos rek jigéen daal di tëbb addina yëpp dina jante amatul déedi kër amul jéeri amul géej amul guddi amul bëccëg amul kuñ si na ñu jant bi denc ko ci suufi abakku bensin abakku bensin ñu rocc ko rawale ko dénk ko jëri la suuti booba sam booba kàbb gi am na keroog ñu yëkkati kàbb gi nag yóbbu ko mu nekk béyt ni ñun ci asmaan juróom ñaar foofu nag ajir la suut dénk ko abakku bensin moom rek la ndox mi nangu mooy fi ne bi taxawoon di yàgg ci xeer bi yooyu ñu dem màkk yi dem nañ ci màkk yi maa maa dem ni ànd nañ
Abdou Waye waaw noonu ne dat biñ ma joxoon de yaakaar naa ne jegeñ na waroon naa am ku ñu seeti ginnaaw ku seeti réew mi ba xam ndax am na fenn fu jiir yi am fu ndox mi nii wax nañu ne tana jëkk a dem waaye jubalul yoon ñu muuñu ko ci wax nañ ne baax la tànk bu diib bii di ko ko yóbbee mooy ba ñuy lakk maam Ibrahima moo gënoon a gaaw ci ñi doon yëpp matt mi suñ ko boo déggee ne dina ku ko dóor benn dóorin am nga juróom-ñaar ci juróom-ñaar ci éri yëpp mu ngi ci jublu nag dóorin wa metti dóorin wa metti rek mu ngi ci jublu waaye ci benn yoon bi rek mu dox mu dee moom ba ñuy ba ñuy lakk maam Ibrahima ci ñi doon ëpp pour taal bi gën a tàkk ca la waaw teel ma gàttal wax bi rek ki tax ki tax a jëkk ñëw signalé ko ne ko Kaaba ga def mu war a nekk def mu tund baax naa ci sax xoolal sama tànk yi ñu xool tànk yi tànk yi commencé noonu tànk ci tax mel mu ne ko randal ma pour médaille yi maa indi émission bi maa ko dox ñëpp ñu ne naa dafa ñu ko ñëwaat xott yi ci la sinu sëlm mu ngi bëgg sànni yàlla yaa noon ku dugg ci gaal gi naa dugg ci gaal gi sunu waa kër sama doomu ngari sunu waa kër la
lab la
nee nañu doom bi nooyu diñu ko woon jabar yëpp ren jëlee ku juróom ñu doomu jiit la am na ñu ne déedéet ñu yàlla waxanteel mooy ci la ñu xam ne nooyu ne jur doom ji mën naa xam wax mooy li ñu wax rab bi nit ñi ok
léegi mu ne ah gën a lu ko bëgg déedéet yàlla bëgg a tontu
léegi sama Aliou Kaka moo bëgg ñëw.
ci laa jëm ci rek ba waa ji noppi xam nga moo di foofu ñetti sorcerer yi ñu dañu ba dàq ne yonente bi jur doom ji nekk yéefar bi mooy yàlla waaye am na ko leen démanti yéefar yi leen xaabil ak aabi ñu ne li tax ñaan ñoo ko jur alquran prononcé ne woon naa daa nooxe koy nekk loolu bi yàlla woon naa daa nooyul ibnahu yàlla ko ko moomale loolu du wax yàlla mooy li mu wax ina bi comme moom moomale na ko boppam yàlla moomale ko comme doom ji dafa doon doom yi jiit la doom yi ndigg la am na déedéet parce que yonent bi jur koy mooy te it am na lu prononcé alquran du doomam